li ci yenn kaay yi li ci yenn kaay yi

daal dañoo war a tànn ay nit ñoo xam ne daal maanaam daal fëra ñu fenn yéenikaay bi dañoo xamal ne moom daaw da koy yëmu ca ndax Moussa mii nga xam ne daal moo nekk jëm ne ci réewum Sénégal am daje la ñuy waajal kay balaa yàgg danañu amalam ci kàddu yi nga xam ne daal war nañ ko yëkkati jëmale ko ci fànn gu mel balaa yàgg danañ ci yàbb ci société civile gi nag jamono ji nag ñoom la sàkk moo di jal boobee ñu daal tànn koo xam ne maanaam daal képp koo xam ne ko jëm na ci fànn googe nañ ko ci lool waaw waa société dafa mel ni nag ñoom ña ngay di daal di génn ay tur yéeni bi dañu xam ne ki moo am ci ñi nga xam na boobee ji ngir wàññi accident yu metti yi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal bokk na ci oto yu yàqu yi nga xam ne daal ay xeetu oto yu màggat la yoo xam ne daanaka feeraay dong ca des yi nga xam ne ñooy daw ci circulation bi ñooñee tamit ñu daal leen ciy jële waaye tamit lépp loo xam ne nag jëm na ci permis de conduire yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ci réewum Sénégal loolee daal ñu xool daal yooyee permis naka lañ koy joxee jamono ji nag taxaw na ngir soppi lépp loo xam ne nag jëm nag ñu bëri di ñàkk seen bakkan fekk leen ma ci yéen bi di wax di ñu xamal ne kër gi nga xam ne daal moom la ñu wax SN HLM jamono ji nag ak jaaxle daal ñoo fa am liggéeykat yi nga xam ne nag ñoo nekkee foofu la jamono ji ñooy joxe waaw maanaam ci nga xam ne daal moo jiite kër ga jamono ji moom moom la ñuy joxañ baaraamu tuuma nag la ñuy xam ne moo di moom mi nga xam ne daal moo jiite kër googee jamono ji li nga xam ne daal moom la nekkee ci kër googee wunatuñu koo nangu waaw maanaam daal tukki yoo xam ne daal tegu ko fenn maanaam daal ñaari baat ñett mu daal di dem aéroport fay daal di tukki yéen kayit dañu xamal ne loole daal bokk na ci li nga xam ne liggéeykat yi ña ngi koy ñaawlu waaye tamit oto yi nga xam ne ñi nga xam ne naka ñoo nekkee ca PCA ba ay oto yeneen ak yeneen maanaam daal yàqate gu metti daal moo am foofee nga xam ne moom la ñuy wax SN HLM yéen kayit bi dañu xam ne ña nekkee foofee nag jamono ji nag ña ngay jàmbat nee nañu daal loolee daal mënatuñu ko dégg te loolee dox ba egg fi nga xam ne nag moo di palais de la république vox populi daal di dikkaat ci lépp xam ne nag jëm na ci réewum Sénégal ak mbuxum gi nga xam ne daal am na fa fii de daaf gi nga xam ne daal fa la defaree carte d'identité nationale yi waaw benn Sénégal au maanaam ba bëggoon benn carte nationale d'identité moo kenn leneen waaw yéenikaay bi dañu xamal ne moom kay ba mu eggee lu toll ci benn million la ñu waaw mbir yi mu jënaa seer yéenikaay bi boo léegi nag ba muy daw ci loolee ngir jot ci mbir yi nag daal dinay xam ne nag mooy taabul Aly Ngouille bi dañu xamal ne moom jëwriñ ji kay jamono ji ne xam ne nag yëkkati na kay moom daal xëy enquête ci lépp loo xam ne nag jëm na ci impôt yi nga xam ne daal dañu koy fay ci réewum Sénégal yéenikaay bi dañu xamal ne jamono ji ne nga xam ne daal ñoo gën a fay lépp loo xam ko fay laax duñu ko ko fay dañu koy daw raw bëri na ci ñoo xam ne daal noonu la ñu sénte woon Dakar daanaka léegi xarkan moon Dakaaru Njaay dafa mel nag ay bëgg a yàqu yéenekaay bi di ñu xamal ne daal yàggul dara ba ñu fi jëlee ab opération boo xam ne daal dañoo bëggoon a jële taalibe yi nga xam ne daal ñoo nekkee ci mbeddi Dakar yi wala sax ñii nga xam ne daal ñoo nekkee di taxawaal yéenekaay bi di ñu xamal ne loolee daal dafa mel ni tey la gën a wullee ñaay àndaxte bëri na ñoo xam ne jamono ji léegi daal ci mbedd yi la ñuy fanaan waaye ne bëri ay risque yu jëlee bëri na ci ñoo xam ne daal dañ leen di faat ñenn ñi sax dañ leen di tëddee yéenekaay bi di ñu xamal ne mbir moomee daal moo jaaxal ñi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee yéenekaay bi di source a moom daal di xëy daal di méngale ki nga xam ne nag moo Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade daal di nag méngale Macky Sall ak ñi nga xam ne daal noonu lay doxalee ak ay ñenn ci ñi nga xam ne daal ñoom lay jàkkaarloo ci pu jéeg Sénégal yéen a ci nguurug Sénégal daanaka daal loolee daal boo xoolee daal ñi nga xam ne daal noonu la doxalee ak ki nga xam ne nag moo di Khalifa Babacar Sall nga xam ne dañu ko génne réewum Sénégal ba noppi nag di woote nag ak dialogue yéen kaay bi daal di méngale ñaar yooyu nga xam ne nag moo xew ñaari deux yi nga xam ne nag ñoo war a ñoo war a bëre balaa yàgg muy Lac de Guiers 2 ak ki nga xam ne nag moo di Boy Niang waaw en tout cas daal ñaari mbër yooyee man daal jamono ji noppi naa ngir jàkkaarloo li nga xam ne nag moo di ndoguli ba suba